trois espoirs. waaye Bou Siteu war na fa ki nga xamante ni mooy Aliou Fat Fat waaye Laurent Ndiago war yaakaar alliance Baldé waaye waaye ki nga xam ne mooy boy boy war na fa jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Doudou Sané yee lamba yooyu jibi tamit ñi incha allah rabi ñu ngi fas yéene ñëwaat fii si arène nationale fas yéene bëgg leen teg seen lamba TV jibi Malick ngi noonu di wax ñaari mbër yi wala du Malick Malick Ngom la juumu ma dama yaakaar du Malick dama yaakaar dama juum. ndeysaan mbokk yi ñu ngi noonu lu waay doon jaay léegi mu lamba wure ba dem na keng waxi mag dem dañ daal yi Tapha Mbeur Gamou Gueye Malick ngi wax ak ñoom mbokk yi tey la samedi 24 décembre 2022 ñu nekk ci fête ñu ñaanal suñu mbokk chrétien yi mbokk yi waaye ñu ñuy waale ki nga mooy borom Seras moom mi nga xamante ni bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul moom Boy Jolof borom Seras tey la bisu bës dayam ma ngay Boy Jolof joyeux anniversaire happy birthday to you Boy Jolof vie au-delà de tes rêves ñu lay ñaanal mbokk yi dafa mbat pied droit Gamou Gueye pied droit arbitre sifflé na génn na seen diggante ñaari xale yi ñooy jàkkaarloo dafa mbër la ñu jàkkaar lool Gamou Gueye moo ñu woon ginnaaw mbokk yi Kandji production nuyu naa la PDG TDR nuyu naa la Kandji production sama waaja ak a baax si man l'homme social abo sañ-sañ nuyu naa la nuyu naa tumaani ak tël doo mbokk yi tey ñoo ngi arène nationale ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu waaye Loos Optique Lamine Ndiaye borom feer yi Loos Optique nuyu naa la Gamou Gueye noonu jiital pied droit Tapha Gueye Tapha Mbeur door na ko joo gauche eh Tapha looy def na wóor Gamou looy def na wóor ba door ñu rentré du am ñaari xale yaa ngi si géew bi jibi jàppante baaraam bàyyante Gamou Gueye face à Tapha Mbeur waxante woon nañu eh Gamou pied droit Tapha Mbeur pied droit waaw waaw Malick day bëreel leen waxu lañu woon lii bu leen rusloo amateur yi bëreel leen jàppante leen ngeen bëree eh nama naa làmb suba làmb suba diggante Jackson ak ñàkk jëriñu du am lii dañuy lewtoo dañuy bëre ñaar xale yooyu wóolu naa leen dañuy bëre jug fii arba sib la waan na mbokk yi samedi 24 décembre fête de Noël mbokk yi suñu xel dem suñu mbokk chrétien yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Kandji production PDG TDR nuyu naa la Abo sañ-sañ sama waaja nuyu naa la nuyu naa tumaani mbokk yi ak ki nga xamante ne mooy Toldo ñoo ngi bitim réew di daan seen doole di la Sénégal di la diaspora Gamou Gueye direeku jëm si kaw Tafa Mbër Tafa Mbër ni cekk di ko déglu Gamou ak Tafa door amagul léew tooba yàgg na 4 minutes de combat dara xewagul ba ne leen dañuy ñibbi Gamou Gueye face à Tapha Mbeur deux géants deux adversaires de taille deux guerriers leen seen koraa Gamou door na ko Gamou Gueye door na Tapha jël na ko jàppal na ñoom ñaar làmb jeex na Gamou door na Gamou doy door Gamou doy door Gamou doy door Gamou doy dóor waaye Tapha mi ngi wut mu jàpp Tapha fayu na Gamou ngi dóor Tapha jàpp na kemb la Gamou li ngay def na wóor Gamou li ngay def na wóor ki ngay bëral daa mën bëre Gamou Gueye Tapha Mbeur jàpp na sa ngemb la Tapha Mbeur moo ñu woon ginnaaw mbokk yi jàpp na Gamou jàpp na laay la lamba ja day jeex Gamou attention Gamou attention Tapha Mbeur attention Gamou attention Tapha Mbeur Gamou defal nank ki ngay dafa mën dafa am ba loxo bi di dóor dafa jàpp na daal di ndengeñ gàmmu jàpp dafa jàpp lay léeg-léeg la xeex nañu léegi ñaari xale yo xeex nañu dafa mbër ba dafa mbër jël na avertissement mbokk yi Malick Ngom siflé waat na dafa mbër face à Gamou Gueye mbokk yi tey le 24 décembre dafa mbër jël na ko Gamou Gueye dóor na ko laay ne la laa bu loolu dalal mu yàqu hey attention Tapha Mbeur attention Tapha Mbeur waaye Gamou Gueye bul focaliser si xeex bi la turoo dafa mën na la ndax jël la mu plaqué la looy def na wóor Gamou waaye Tapha Mbeur looy jël na wóor sa adversaire bu la mën na laa door coup te bu mën nga wàcc ndeysaan ñaari xale ya ba léegi ñoo si Leewtoo ba jibi six minutes de combat dara amagul ah, Tapha Mbeur Gamou Gueye mbokk yi Tapha Mbeur am na ñaari avertissement Gamou Gueye amagul dara Leewtoo ba dig na eh Gamou Gueye Gamou Gueye face à Tapha Mbeur ba jeex na 10 minutes de combat. jibi ñaan leen ndox dellu si waat jibi ginnaaw bu ñu bëree ñoom ñaar 10 minutes arbitre sifflé waat na dafa mbër gàmmu gay dafa mbër mi ngi accéléré wala gàmmu gay gàmmu gay ma accéléré fi mu la bëgg a jàppaat bi gàmmu gay mbër lii nag mooy yoon bëree latéral sëriñ lii mooy yoon lii la war bëree gàmmu moom dafa mbër waaye mbokk yi nuyu nañ suñu waaja booy Jolof borom Seras ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire moom Boy Jolof waaye di nuyu ki nga xamante ne mooy Moustapha Kandji PDG TDR moom ko Moustapha Kandji sama waa jooju nuyu naa la dafa am bër gàmmu gay dafa am bër gàmmu gay ñu ngay a def ñaar bëri nañu léegi 10 minutes daal lu dellu siwaat combat bu metti bu yàgg am bër dafa mel ne am na lu ñu ko dee li li da ko mu dalaat ko dafa mi ngi doog a bëre lu mu mu ngi soog a mu ngi soog a yeewu gàmmu gay dafa ko ba biir na ñaar Leewtoo wuur ko gàmmu gay face à dafa gàmmu koy mépp na léegi waaye demul. gàmmu Tapha. day lem rek. ñaari adversaire de taille Ndeye Mbacke. ay morom lañ ñaari xale. nekk ci examen bu dangereux ci ñoom ñaar ñaar ku nekk liggéey nga. ku ci nekk combat am fu la toll. di sumee ko ñëpp nii waaw waaw xale yi liggéey nañu. loolu mooy yoonu làmb ji mi ngi koy wër-wërloo. Tapha Mbeur attention Tapha Mbeur attention Gamou Gueye. Dame moo ko wax Dame moo ko ne bul taxaw benn. Gamou Gueye ko. Eh, gàmmu bu la Tapha Mbeur gisee du baax de. Tapha Mbeur gàmmu gay gàmmu gay Tapha Mbeur mbokk fàttali moom Tapha Mbeur am na deux avertissement gàmmu gay amagul dara. soo si délibéré la. gàmmu Tapha mbokk yi tey le 24 décembre. si arène nationale. Tapha Mbeur gàmmu gay. suñu xel yi ñu leen di nuyu di leen jaajëfal di leen kontaanee waaye naa sama soxna si tey aw ma damay liggéey. mbëggeel bi dafa denc ba beneen yoon. waaye nuyu naa la bébé nuyu naa la foo mën a nekk. dàq nuyu naa waa dëkk ba. ayca jàmm raxasoo. ba léegi ñaari xale yaa noonu. lan def. les optique nuyu naa la borom verre yu baax yi dafa mbër. ndeysaan dafa mbër gàmm koy jàppante baaraam damante baaraam bàyyante. gàmm koy sol ko dóor eh! eh Pakao du am. dafa am taxawul. dafa am mbër Gamou Gueye. dafa am mbër Gamou Gueye. xeex xeex. Gamou Gueye xeex ak moom. ngay def lan la. xeex na. taxaw Tapha Mbeur daw benn yoon day Mbacke. nga xam tey loxo bu loxo bu dis gan la mi ngi loxo bu dis gan la indaale waaye Gambie dugg dafa ëpp sax lu mu indi tey. Gamou Gueye lu mu indi tey. Gamou Gueye mii lu ko luñ ko dee tey. tëngeej la ak ak ak parcelle. métti na waaye métti na physiquement. bis bu nar waaye xëy na itam demee incha allah rabi le 25 décembre nday Mbacke. diggante Jackson. ak ñàkk a jëriñu. général ak ki nga xamante ni mooy Bour Sine. Laurent Ndiago. eh mu war a jàkkaarloo Alliance Baldé. loolu lay neex. waaye Bour Sine te war a jàkkaarloo Aliou Fat Fat. Aliou Fat Fat. waaye ak ki nga xamante ni mooy général combat mu neex la. na ñëwaat fii ci géew gi. am fi ki nga xamante ni mooy Tafa Mbër. du am lii de. guubi fii lay commencé. suba suba vite fait bien fait la. tin mu nga leen neex sëriñ. waxee mais waroon na ko tey Ndeye Mbacke combat yi ba gaaw. dafa gaaw gaaw tamit. combat bi rek du yàggal combat ñàkk jëriñ du yàggal combat. moo tax suba da ngay gis lu garaaw. Eh, suba incha allah rabi Baba Diaw production loo wootee. waaye ñëw fii Gamou Gueye. ndeysaan ñoo fii Gamou Gueye ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur. Tapha Mbeur Leewtoo bi biir na fu mu ne nii. lamb ji ndembe ku song sama ram daan maa la wax lii man Serigne. Gamou Gueye song la bëgg. ndey mbàkk ku jàpp sa tànk borom daan ko maa la ko wax man Serigne. Gamou Gueye song la bëgg. ndey mbàkk day Mbacke tey xàmme wu ma Tapha waaye Gamou Gueye mi si combat tey xàmme wu Tapha Mbeur ñii nee na ku song yaay na kenn song moromam boo song yaay de ayca ñu ngay lewtoo ba léegi Tapha Mbeur daa bëgg Gamou Gueye jël ko Tapha Mbeur li Tapha Mbeur la bëgg gis nga jam Gamou door na ko ba Gamou da koo liir Gamou da liir dafa daa sa waay jug mu ko Tapha Mbeur. Gamou Gueye Gamou daa bëgg Tapha Mbeur jóg mu dóor ko. kii xeex kii bëri la indi. Gamou bëri nga indi dara Gamou moo indi xeex bi may Tapha Mbeur tey bëri la indi Ndeye Mbacke. waaye Gamou Gueye ni muy duggee ci garab Tapha Mbeur loolu du yoon Tapha Mbeur tey dafa wàccee garab ga trop Gamou Gueye day dugg di génn te loolu baaxul ci mbër su yàggee rek mën na cee judd. mais avertissement moo des de combat bi jeex. am na trois avertissement moom Tapha Mbeur. wala dafa mel ni 5 la 3. gàmmu gàmmu tey xeex indi de. tey xeex indi. waaye gàmmu gi mi na la de Ndeye Mbacke. garaaw la yor. dafa eh. dafa baal tàkk bi. dafa mbër da ngay jëlee moo baaxul. da ngay téléphoné. gi épirkilam bii fu mu dal fu ne. ah gisuma la de. gàmmu Tafa. def na ko ñaari yoon. na ko bàyyi xool leneen boog. bu ñettee làmb ji jeex leen day Mbàkke. bu ñettee nga gis lu garaaw. deux moo ko dese moom dafa am mbër. dafa am nañu waat. tel na ko. Eh. eh dafa jàpp na ca Senghor ya. jàpp na ca Senghor jàpp na. gàmmu goy jàpp na. dara ci benn loxo mbër jàpp na gàmmu jàpp na. moom gàmmu goy. gàmmu jàpp na dafa jàpp na. ñu xool day mbàkke lamb jeex jógee mën day mbàkke bul taw. fu mu ne nii xel xel moo des. day mbàkke lamb ji fii lay eh, bi tomu sifflé ardo taama jeex na. taama jeex na gàmmu goy tànn victoire waaw waaw temps ba jeex na victoire de Gamou Gueye waaye fi mu jeexee neexul waaye fi mu jeexee kenn soxla woon day Mbàkke duñu bëggoon kenn daan kenn bëre moroomam ba dànk loolu la ñu bëggoon mais fu làmb ji jeexee neexul waaye lii du bëree waaye lii du waaye bëre leen ngeen daan moo gën ah waaye lii waaye non waaye non bu kenn kontaan kenn kontaan lii du